ndakaaru Pape Diop wër aljana gi nga xam ne ca la nekkoon mu neex lool te mu ñàkk ko soo am war di nii nekk maire boo xam ne dañ ko faa jëñax waaye nee na du ba ñam naa ko neex na banaa amul fenn du Doudou Wade jokeer bu parti démocratique sénégalais ñu xaw a ñàkk doole ci capital bi fas ko yéene wëraat Abdoulaye Diouf Sarr candidat bi gën ci Benno Bokk Yaakaar moom mi nga xam ne géntam yépp du lenn lu dul jiite ndakaaru jël joob bi nga xam ne ay maama ma ko soos Barthélémy Dias mooy susu ndakaaru jël ndonoog Khalifa Ababacar Sall Mame Mbaye Niang laaj ba samp mooy mbaadu nag mooy ka Macky Sall Sall yónni ca suuf te kenn yëgul lu ci mënti am daal juróom benn yii leefa ne ma ñooy xëccoo ndakaaru Bougane Gueye Dany ak mouvement gëm sa bopp nar ñoo bokk ci yooyu la élection de déedéet leefo daal ne ma daal dina ñuy dàq seenug liste te loolee cour d'appel da ko daal di dëggal Bougane nag daal nay daw wutali cour suprême ngir fas yéene amuk dëgg mën a bokk ci élection locale yi rawatina ci ndakaaru enquête yéene kaay ne ma ne la ñin bàyyi ñu jàll bu ñu naagu waaye ñi ñu rejeté bu ñu xaddi ña xam ni dañoo rejeté woon seeni liste très attention enquête yéen kaay ne ma ministre de l'intérieur daal dinay sàkku ci préfet yi ak sous préfet yi ñu daal di daw ca pourvoi en bu ko jaree ngir liste yéen rejeté woon cour d'appel daal koy dekkalaat ñu daal koy jéem a rejeté waat l'info yéen ma déggoo de Bougane Gueye dem na kalaame ji waa cour suprême ëttu attikaay bi gën a kawe ndax nag liste mi nga xam ne nee na ko teg ñu teggi ne ko bokkoo critique yéen kaay daal di may xamal ne lii nag bu dul acharnement xaw ma lan lay doon ndax liste gëm sa bopp yëpp dañ leen daal di ci département yu Sénégal yëpp laa la wax moo am Ndakaaru moo am Bignona moo am Diourbel moo am Lambaye Gongol foofu nga xam ni maire ba ci boppam sax moo dem fekki Bougane Gueye Dany te xanaa doon ni ma maire ba xamul nu ñuy defaree liste gaawaan dax nañ fa liste gëm sa bopp Babacar Justin Mbengue ci yéenekaay bi daal di xamal ne ndaw yi nga xam ni ñoo bokk ci grande coalition gëm sa bopp daañu amal ab sitting toogaanu ñaxtu àllarba ji ñu jëm ci buntu nag préfecture bu Ndakaaru yi nga xam ne teg nañ leen ko préfet bi di Mortala Tine teg leen ko te jaarul yoon di woo nag opinion nationale ak internationale ngir ñu ñëw nag bokk ci la manifestation ngir na coalition gëm sa bopp ñu mën a fexe mu bokk ci élection locale yi ndax dëgg-dëgg fiir ak ragal moo tax bokkuñ ci xale yi gëm sa bopp yi ne waat nañu ko ne ñu bàyyi dara mu sedd daañu def seen kéemtalaay kàttan ngir gëm sa bopp mii lañ ko teree bokk ci élection yi mu daal di cay bokk par force sécurité yéen moo ñu ko daal di xamle source a daal di may xamal ne am nay recours yoo xam ne yu askan la it bu wàllu Sénégal ak yu gox yu bees daal dinañ koy dàq te cour d'appel yee ko dàq yeewi askan wi nee ñu daañu xam dëgg-dëgg ci yenn localité lañ leen tere bokk ci élection locale yi waaye ba fii xaaf ak Sonko war nañ xam ne du ñu am candidat si Sinthiou Bambambe ca Bokke Jalube waaye tam ca Mbobbo Sinjiri wàllu Sénégal ñu forfait leen ca Wuro Sidi gox yu bees yi duñ bokk ci élection locale yi ci commune bu Odobéré Vox Populi ne te Parcelles de moom benn bokk yaakaar xar na fa ñaar ndax parti socialiste dañuy demal seen ca gëgguy Mamadou Wane dañoo def suñu liste bopp ndax Moussa Sy fukki at ak ñeent duñu nangu mu def ko ci mairie ba pare bëgg ci yokkat muy ñaar fukk duñu ko nangu 24 heures yéene kaay ne Macky Sall kay daal dinay wax ci liste parallèle yi ndax xamle na ni moom moo autorisé yenn liste parallèle ci yenn zone ngir bañ nag ñiy wote maanaam ñi leen di woteel ñoom gedd dem feneen sama kàddu yi président Macky Sall ne ñenn ñi dañ ko politique de waaye garaawul moo tax yéene kaay bi sam pub laaj ne ñan ñoo doon wax ne Macky Sall laalewul ca kàddu yu bëri yi waaye tam ca def lu leen neex gu Mamoud Salek Mambay Niang en tout cas élection yi xumb nañ te ñëwagul le quotidien le quotidien ne ca Kaolack de moom rapport bu igal daal dinañ nag taqal juróom benn ci ay juge ay magistrat lañu bu cour d'appel daal dinañ leen di nag yóbbu ci kanamu conseil de discipline ba fa ñu yeree juge ñoo ñee dañoo waxoon cour suprême mu artu nag ci yorinu président Ousmane Kane l'évidence yéeni kay ne ma boulanger yi de daal dinañ ñuy gàntal seen gréew ci lakk mburu mi gannaaw ba ñu dajee ak innocence tab Ndiaye laas yéeni kaay ne ma téere bu mbugar ba laaj baa foofu de waali ba critique littéraire ci yéeni kaay bi ne mbugar daf ñoo war a xamal dëgg dëgg fan la féete moom ci wàllu ngóor jigéen vox populi ne kat si day bu nu yebul Sénégal yi soriwun ko xoolal ma jaari sow mii rek lu mu fayee sénégalais yi gannaaw wër gu metti gin ko wër daanaka saaga daal la leen def ñu yéen ak jàmm bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi ca day faat nañu gànnaayoo masque yi jëfandikoo gel yi te di respecté distance un mètre yi ba tey yendu leen ak jàmm